naa leen wax a ngémb ñëpp bu ñëboo xam ne perte nañ ndax faalewu ma leen yéen laay leeral ma leen di wax ne Médina gii ma teel ko wax ñun ñooy doyee du ko du ko du ko yor jaam du ko yor warkat du ko yor fenkat du ko yor góor jigéen du ko yor daleen nag jàmm seen chaîne YouTube Medina TV su fekkee sa première fois la ñu ngi lay ñaan nga ay ca waaw euh, salaamaaleykum waa Medina may dugg di ziar ñëpp di leen nuyu am mbégte tey ndax euh, damay fête anniversaire <clears throat> ñaari anniversaire d'ailleurs muy samay frère samay xarit vraiment day jàmbaar si li ñuy def lépp suñu liggéey bi <clears throat> muy euh, Cheikh Ahmed Tidiane Faye ak Madiane Ndiaye happy birthday to you vraiment ñu leen di ñaanal di leen ziar <clears throat> di ñaan yàlla vraiment mu sax ay saxal ay xéewal di des seen euh, adduna seen dund euh, ñu baax ngeen vraiment ñu leen di gërëm di leen sant si li ngeen def yëpp pour la Médina et pour man particulièrement euh, li ma si teg mooy effectivement depuis hier et ce matin d'ailleurs les gens m'appellent de partout li ma wax ne dañu gis benn video boo xam ni dañu jàpp ni man lañ siy waxal man man sax góomoon loolu trop nee naa leen ñaari mbir ñaari possibilité am na quand benn bi mooy euh, wax ji si waa Médina la jëm te waa Médina am nañu matt ak xel boo xam ni seeni problème mën nañ ko régler seen bopp parce que ñu baax lañu vraiment euh, ñu am yar lañu donc loolu mën nañ ko régler seen bopp. Euh, te man sax dama d'accord tuuti si vidéo bi lu ma wax parce que ku am melokaan bi mel noonu vraiment euh, gisuma waa Médina lu ñu def ba voté ba nga nekk fi maire loolu moom d'accord naa si <clears throat> li ma li ma jàqal nag mooy démocratie yenn saa yi dañuy jum nañu jum si ay vote euh, xëy na donte benn yoon la xëy na waa Médina seen histoire politique juum nañu benn yoon si seen élection mën nañu jum Euh, élire ku mel noonu loolu mën na am waaye defe naa ni euh, en tout cas si nekk suñu kanam euh, aujourd'hui avec la maturité politique bi am au niveau de la Médina loolu dina dina difficile ku am melokaan yu mel noonu yàlla ci yàlla musal. bu dee si man la jublu nag gars yi ma leen wax ni man <clears throat> je préparé à tout ça depuis longtemps et j'ai préparé ma famille mon épouse